déglul ma wax la xar guddi juddug Mustafa njool Makka xar baax yooyu guddi juddung Mustafa njool mag yàllaaw hawat xawaariqa xaadaatin jalat sanama laylatu mawlidi lil kufri yàllaaw keroog ba njool makke feeñe makke bi bisërëy yawmal wilaadati lil muxtaar yàllaaw lama badal safaani raanum xamundat xaadat boyratahum lawli yàllaawu keroog seen buur bu mag ba anoo sarwaana moo ko tabax ngir fonk jaamuy xërëm waaye rus na waa di samawatu ndox yay wal wali safi dex te mas am ndox di àllub tug la yàllaaw laajal borom burdu li barsan ji wax mu dëggal saati bi walafal ngeen xam ko yàllaaw ka annaari bil maayi maayi bil maayi min balalin حسنا وبالماء ما بنار الله قد استنارت بنور المستوى بارا زور خيسرا يندي سامي الله نور المصطفى بارا خسور خيسرا جند سامي يا الله قد سنارت بنور المصطفى بارا suuru xaysara ngeen dey saam yallaaw xadi sanaarat bi nuuril mustafa baharan suuru xaysara wa ngeen dey saam laawu diggante umul xuraa ak xaysaraa di melax waa saam di séenanteeg waa makka yàllaaw wasdaadati samsu نور قد على قمر بمولد المصطفى المختار يا الله سيدنا محمد weer wi sikar jant bi sabal bi diw yi di way garab yi meññet mi neex saf sàpp yàllaaw weer wi si kar jant bi sabaal biddiw yi di garab yi meññet mi neex saf sàpp yàllaaw fa mu sawaati moloon boppam ba booba ba tey gëtëg miski gaa nga fay xeeñ mbaate yàllaaw sayyiduna muhammad atum juddoom ba lu juddu yu góor jigéen judduwul ca moomaat ngir nga magal ga yàllaaw way wu tayaa ngay dana saawa mawlidi taarix ba nag moo di xamal fii li yàlla xaqiqi taarix ba nag moo di xamal fii li yàllaaw mooy at babra tey tàggat ñayam ya di war ngir mabika bata rabbil arsi yàllaaw xalat malaikatur rahmani yawma bada murna bi tarbiyatil muxtaari yàlla sayyiduna muhammad malaaka yaa ngay dagaan buur yàlla ngir bëgg a yor muhammadana fi sama wal ardi yàlla niir yaa nga naaw ربنا أمرنا إلى ملوم الجوانب والأفاخ الله njaaliyana yàlla noo ngi lay ñaan nga may nu ndigal al abayti wal awkaari yàllaaw sayyiduna muhammad jërëjëf seyduna muhammad ci yetti la taxaw ànd ak xeleel ya di dox juróomi weer la dër mat sëkk yàllaaw màggug bisam moo di màggug weer ci doomi arab weeram di am at at ma dimlim fa yallaaw wa kallama naasa taklima bitaay sitiye min suuri fa si an nutqi yallaaw ci fukk weer la ni jàndang lompa ñuul la fa ñuul di pelpeli wax di waaw xuy wey fay allaaw malaaka ñëw xandam xar dënam tàbbal ca yaari roxoom raxas ko yokk koy kam muy waare yàllaaw xaatim ko tampe ko fa ba peesa mu wajjuni malaayika fi diwaani yàllaaw sayyiduna wa muhammad waatirna darixal sawa karaman daran bi arfin sasin minka yàllaw sayyiduna wa muhammad mawlid bajena way naa lépp lam weseroon ma way xawaarix ya yoon nen def fa Allahu ngir kenn du ko xam la yéen deera wax laay gaaw defe nii nu màggal Seydina Muhammad ngir mu di daati rasuulillah kenn du ko xam la teere wax laay wax fa yàlla tere wax laay wax laay wax fa yàlla Seydina Muhammad xam yenn téere ya wax amul ca gaaya yoon amul ci gaaya yi fi des am til ca ñey bëgg a insha allahu amul ca gaaya weyoon ci gaawaay fi des am te ca ñiy bëgg a ñëw insha allahu sayyidina amul ca gaaya weyoon amul ci gaawaay bëgg a ca gaaya weyoon ah, amul ci gaaya jaza andil ci ñi bëgg a ñëw insha Allah amul ca gaay a weyoon amul ci gaay fi des am til ci ñit bëgga ñëw insha allah sayyiduna muhammad day miin way ñàkk-ñàkk miskin ya kenn du ko daw di raay jirim ye di togg ak jaam ye laaw di seeti yopp yaa jaal way deew fuñ mën a xew di ràmm way deya faatoo foofa yàllaaw seydina waaw muhammad du xeeb du naw te du laaj nit lum amul abadan kooka sellang lu ca kaw askan wa yàllaaw du door du mer te du merloo nit du gëdde du lor du xoti saatir du yàqub der fa yàllaaw seyduna muhammad suy mer dadaa mer ci mbir moo xam ni yàlla da ko mer mustafa mer ko mook saabaam ya yàllaaw suy bég dadaa bég ci mbir moo xam ni yàlla da caa bég Mustafa bekke moo sabam ye yàllaaw su dee gërëm day gërëm koo xam ni yàlla da ko gërëm mu xëy ko gërëm moo gaaye yàllaaw ku mu dajeel faw moo lay njëkka nuy si bu wér day saafu anteek jàmmanteek yàllaaw Seydina Muhammad ku mu raay sa bopp nga ànd ak barke foo mën kum tifli ñaanal dootoo joote yàllaaw Seydina Muhammad Seydina def li nii nu màggal Seydina Muhammad Seydina Muhammad def li nii nu màggal Seydina Muhammad Seydina Muhammad def li nii nu màggal Seydina Muhammad محمد سيدنا محمد dañu def leen nii nu màggal yaa rasulullah sidna sidna muhammad alayhi salaatu wa salaam سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد